نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى ñaseen Medina Baye Layeen famille omarienne boo yàggul sax ci église bi parce que wane woon naa ci sama page Facebook suñu maam suñu nijaay Abbé Jacques Seck mu doon jël sa carte de membre d'honneur de Jamra donte le bokkuñu diine mais nu partageons les mêmes valeurs kon Jamra loolu rek la du leneen wootewuñu diine ñu wootewuñu tarixa ñu daayira ay doomu réew mi la joxe seen bopp seen seen joxante seen loxo bopp dal di ittewoo sàmm ndono rafet la fi mag ñu baax ñu bàyyi muy mag ñu baax ñi tëdd Touba Tiwaawan Njaasaan ba Ñaseen Medina Baye Laayeen famille omarienne ndax ñu baax ñooñu ku ci nekk ci ñoom bi ngay laata wuy ji sa boroom jëf nga bàyyi fi bind nga bàyyi fi wax nga bàyyi fi kon ku jóg naan war nañ leen a fay bor waxi taalibe bu xër la rek ndax koo xam ne moo la génne ci lëndëmaayu jahiliya indi na ci leeru siraatul mustaqim koo xam ne moo la xamal xaala laaw yàlla nee na xaala rasulullah yenent bi nee na boo jógoon itte woo danga koy fay bor weer bu jot nga jël sa intégralité salaire boole ak conteneeru or ak i jamaa du tax nga mën a dab boru xaala laaw xaala rasulullah comme que ma ñu ñu leen fay bor nag lan la ñu mën delloo leen jukkal delloo leen jukkal mooy lan mooy li ma nettali léegi rek joxante loxo ak suñu ay mbokk taalibe ngir sàmm ndono liñ fi bàyyi seq ndono li sàmm ko aar ko ba ku ko bëgg a xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby góor jigéen lobby franc-maçon ak lobby yiy laqatu derrière les producteurs de série di fa jàllale des messages subliminaux de promotion de l'homosexualité de l'adultère et de la fornication lobby bu mu mën doon ba ci lobby foo oustas yi nekk ci réseaux sociaux yi di def de la pornographie verbale ak lobby artiste bu mu mën a doon di profiter de de de de ta notoriété pour di jàllale ay messages yuy yàq jikko xale yi. lobby boo mën a doon laa wax ñu daal di itteewoo jàmmaarloo ak yow mu jaral ñu lu ne loolu mooy suñu taxawaay suñu choix la nag. te on assume li ñu ci fekk yëpp góor jigéen yaa ngi saaga lesbienne yaa ngi saaga des salopards comme ak Akhenaton nekk fële ca euh, diaspora ba laqatu lâchement derrière son clavier chaque fois bu def Jamra defee jàlloore dans le renforcement des sanctions pénales contre les trafiquants de drop surtout bi Jamra criminaliser le yamba et le cannabis mu gën a rakkaaju ci suñu kaw ci saaga ba Jamra demee seeti ministre de l'intérieur pour dénoncer la délivrance illégale de 16 récépissés à des associations de góor jigéen et de lesbiennes Akhenaton dalaat ci suñu kaw moo tax ne ko yow war nga wax foo bokk bu Jamra attaqué góor jigéen yi nga dal suñu kaw bu Jamra attaqué trafiquant de drogue yi nga dal suñu kaw war nga wax fa nga bokk fa nga bokk nag yow xam nañ ko sa baay tur wu tedd bi mu la tuddee muy Ousseynou Ousseynou Seck nga tudd kan mooy Ousseynou Seck Ousseynou Seck Alioune Abi Talib di saaba yonent bu tedd boobu te jàmbaare suñu borom may ko doomam bu mu bëgg ci xolom di Faatumata Zahra bintu Muhammad mu am ci ay seex di Asan ak Ousseynou cosaani tur wa fa la jóge sa bàyyi tuddee la tur bu tedd boobu Ousseynou Seck nga fab tur yi sànni ko sa xaj dal di wane ne taalibe iblis nga jël turu sëtu na bi nga xam ne moo waxal boppam ne jaamukatu jant bi la mooy ak Akhenaton mooy le soleil est fier de son adepte nga daal di jël tur woowu nag def ko sa bopp muy sa surnom sànni sa turu julli sa xaj moo tax nag yow loo xas jamra du ñu metti du ñu bett parce que ku bàyyiwul sëñ Muntaxa bàyyiwuloo sëñ Babacar Si Mansour bàyyiwuloo maanaam kilifa diine yu tedd yëpp yi nga xam ne ñoo fi toogal Bamba Maodo Baye Niass Baye Laay boo jógee di attaqué Jamra parce que Jamra dafa criminaliser yamba ak cocaïne du ñu metti soo jógee di attaqué Jamra parce que Jamra dafa dénoncer la délivrance de 16 récépissés à des associations de góor jigéen yoo xam ne dañ koy jox euh, dañ lañ jox ay récépissés de manière illégale en violation de l'article 319 du code pénal en violation du code des obligations civiles et commerciales ba Jamra am ndam ci loolu parce que le récépissés sont sur le point d'être supprimés kon boo jogee yow ak Akhenaton di ñuy saaga ci jaloore boobu du ñu metti waaye nag ko ci barma ne na ko wax feeñ alors kon nag benn exemple lobby ngoogu parce que moom dafa am ay lobby yu nekk ci ginnaawam moo tax moo infiltré beaucoup de partis il avait d'abord infiltré le PDS détourné fa xaalis bu bari ci ay vente de cartes ci ay euh, xaalis bu Ablaye Wade jox joxoon pour faciliter les inscriptions des militants euh, sur le fichier électoral seen i paas ak yooyu te ñu euh, pour qu'ils s'inscrivent dans le fichier électoral waa PDS dàq ko mu transhumé dem APR mu jóge APR transhumé Pastef voilà un homme dangereux qui passe son temps à infiltrer les partis parce que il est en service commandé pour le compte de lobby obscur yoo xam ne bu ñu demee ba ca kanam Jamra dana ci génn ay révélation yoo xam ne dëkk bi dana yëngatu dama la doon avertir nag yow Akhenaton comme que tu as tu, tu, tu n'as pas la de venir ici au Sénégal pour def say ñaawteef waaye toog à des milliers de kilomètres ma di la yëgal ne que ça ne passera parce que tu sais très bien que tu es sous le coup d'un mandat d'arrêt international tu sais très bien que au niveau de la brigade de cybercriminalité am na au moins 15 plaintes yu lay xaar gor yoo xam ne yàq nga seen der ci lâcheté làqatu fële rek avec tes copains góor jigéen tubaab di attaquer ay gor fii ci dëkk bi voilà kon nag taxawaayu Jamra loolu la lobby yëpp la ñu fas yéene jàmmar lool képp koo xam ne yaa ngi taxaw taxawaayu euh, euh, jalgati ak nappaji suñu ay valeur alors ci noonu suñu taxawaay dafa dëppoo rek ak lii chariatul muhammadiya sas jullit bu ne sanga bu tedd bi neen jullit bi ginaaw ba nga matalee say juróomi ponk shahadaat waxtu wi juróom woor weeru koor joxe azaka ak aji màkk bu la ko sa poos ak sa wér bu yaram maye ñu ne ko ah sa nga bu tedd bi ku matal loolu yëpp xanaa wax dëgg yàlla wàccoo nga mu ne déedéet liy mottali seen jullit dëgg mooy ngeen gànnaayoo ñetti posture yi ñu ne ko lan mu ne boo gisee luy raam jëm ci penc mi te nar a yàq jikko yi wala gis luy raam jëm ci penc mi te nara a gàkkal malaanu lislaam nee na waajib la waajib mooy obligation la nga opposé wu ci ñu ne ko naka mu ne fii yaddihi par l'action bu jàppandiwul nee na fi lisaanihi nga wax nga alerté nga dénoncé su jàppandiwul nee na fi xalbihi nga naqar lu ko sa xol ba suñu boroom xam ne da néew doole rek waaye naqari na la nawaytu sawma gadin an adai fardi shahri رمضني هذه سنة